parce que c'est des gens qui étaient venus seulement pour de zapper pour que notre projet de loi ne passe pas. Et moi j'étais dans un coin, il est venu hein, me donner un coup d'épaule. Et je l'ai tabassé. C'est ça qui s'est passé. Il était venu avec ses nervis. À l'Assemblée, on ne pas avec des nervis. Il était venu avec six nervis. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué. moi j'ai riposté par un coup de waaw moo wax ni tey dañu ñëwoon tey ci assemblée pour suñu projet de loi ñoom nag bi ñu ñëwee bëgguñu woon projet de loi bi jàll il fallait que ñu créer des histoires ñu ñëw ak juróom-benn nervi ay ponkal yoo xam ne xaw ma fu ñu jógee ñëw fekk ma taxaw mu doon ah, ma un coup de poing coup d'épaule. ma fayu ak quoi. c'est ça qui s'est euh, passé Ousmane Sonko léegi la fi jógee. Mhm. na yaa ko te metti na si yow lool. loolu la fi metti <laughs> metti bi laa gisul. ma si la ci moom la metti kuy aspirer pour diriger réew mu ni fekk mi ngi xeex mi ngi xuloo hmm? mais li fi gis ci moom la metti nee na yaa ko attaqué. non non non man moo koy nan laay fekkee benn ponkal bu ànd ak fukki ponkal ma di ko attaqué loolu yéenewul maanaam c'est un menteur. imposteur menteur li mu wax lu dëgg lay àndeg ses gardes du corps moi je suis seul je suis comme ça ñëw doomu benn coup xew dëgg la bi li xew problème bi xaw ma peut-être amoon nañu altercation fii depuis l'année dernière def naa ne vidéo bi mu ngi circulé ci biir hémicycle bi peut-être loolu la ma mere mais dinaa xamal ni ko man doonu ma ragal dana def très attention ñi muy napp ak ñi muy xeexal man bokkuma ci. parce que c'est un vrai député du peuple bi jàppale askan bi nekk ci wetu askan bi mais nekk mu fi dafay affaire caaxaan ñi fi violé ñi fi topp jigéen ñi ñi fi rey nit ñi ñi fi attaqué des députés ah man nag fi la may bàyyi fi la bàyyi donc léegi lépp lu mu wax fii xaw ma lan la yéen a ma interpellé ma nee na c'est du mensonge wax dama si dëgg nan lay àndee fukki ponkal man ma di ko attaqué xanaa loolu mooy man euh, bugguma bi. loi bi nag ku ma ak ku ma doon dans le duma comme ni ma ko def tey. bi nga xam ne moom ngeen. daf leen ni <laughs> daf leen ni man. Euh, ah dañ laa attaqué ma duma waaw. Ah, man maa ngi maa ngi nii xam nga déjà c'est du mensonge moo tax ma génn ñëw wax ak yéen ngeen am les bonnes informations ñoom li ñu bañoon. loi bi jàll te incha allah ci kàttan yàlla loi bi dina jàll ndax laal la boo xam di agressé nit di toj këju këru jàmbur yi yooyu dana fi jóg. ñoom si gàttal euh, li ñu wax mooy euh, loi bi nii buñ ko voté démocratie day jeex si Sénégal kenn ku ne bu jógee di manifester mën nañ ko jàppee comme ab terroriste lan seen xalaat. waaw ñoom ci li wax ñoom li ñuy wax ak ñi nga xamanteen ne ñun nañ lañ ko gisee ça n'a rien à fii démocratie bi def naa ni fi la te muy continuer di fi am loolu président Macky Sall di doxal waaye nag dañ les bandits là di agressé nit ñi di toj kër yi jàmbur yi di rey nit ñi di toj boutique commerçant yi loolu dafay jeex loolu doot fi am et puis je bien mes mots loolu doot fi am bu fekkente ne loolu mooy démocratie man xamatuma démocratie kaddu ya nga xam ne moom lañ ca mujjee teg loi bi la ko waral du lenn lu dul mooy da ngeen fas yéene wut euh, troisième mandat bon ma ni waxu caaxaan moom loolu ak seeguñ ci loolu rek moo jubluwaay bi waaye dama yaakaar ni moom nag bi mu fi jaaree léegi gis ngeen ko avec ses nervis moi je suis ndax loolu mën nañ koo jàppee nerf ay gàddu kooram la àndal. mais ban gàddu koor fii fii bu fekkente ne yow nit ku jub nga dafa aaji indi gàddu koor pour moom du dara il n'est bay ñëw fii di indi ay fukki garde corps mais moom mooy kan man maa ngi nii je suis député je suis président de conseil départemental ndomba tànk bu yoru ko te parce que je suis honnête kay mooy ñëw fii ci hémicycle bi di ànd ak say garde corps loolu nag man dama koy ñaawlu te loolu duñ fi jeex nit ñi duñ fi ñëw des honnêtes des honnêtes députés nekk di liggéey yow tekki wa dara ñëw ànd ak say garde corps di bëgg bës xaw ma lan di attaqué nit ñi loolu moom dana fi tëb nee na man dama am problème daf ma gaañ c'est du mensonge moom moo gaañu. nga fàttali ñu tur merci beaucoup. c'est l'honorable député Amadou Ndéry Sy. merci beaucoup. honorable. Macky Wara ba léegi bi yaa ngi yaa ba léegi a ñàkk. c'est pardon soxna si réew mi xot du lenn lu dul moom démocratie dootul am ci réew mi ñoom sax euh, dama yaakaar ni li dugg leen ci ñoom ah parce que 2016 référendum yi affaire góor jigéen bi ngeen wax ci référendum bi ba fàtte si ba ñu poñ yi def yëpp buñ ko defee pour ñaari tur yeeg yooyu moo tax loolu ay fen kese quoi léegi tamit yaakaar na nañu dafa xamuñu àdduna day dox te soo ko xoolee dégg naa ñu naan àq ak yelleefu doomu aadama yi loi bi bu ñëwee da koy faagaagal ci ay anam yu bari mais des fois samay xaw a rus parce sax ba ñaan suñu député yi amuñu niveau euh, mais da am ñoo xam ne ñàkk xam la woon yaakaar naa ak di xool les archives ñoom ñoo fi andi woon coowal góor jigéen opposition bi ñu ni Macky Sall dafa bëgg daganal góor jigéen di lëndëmal xelu nit ñi naa leen voté leen non ba a voté le oui parce que dafa bëgg a man maa andi woon projet de loi bi ci assemblée nationale c' est l'honorable député li taxoon ma indi ko fi mooy damay bëgg a wan ni ñun nitu Macky Sall la ñoom loolu ñu xalaatoon loolu nekkul ci Macky Sall nee na tant que mi ngi ci réew mi di jiite réew mi muy ànd ak xelam loolu du masa a dagan ci réew toog ak le président le plus puissant du monde mu ni ko loolu du am fii Sénégal itélé invité ko mu ci France bu wax leen ni loolu tant que mi ngi jiite réew mi loolu dafa mën am parce que bokkul ci suñu diine bokkul ci suñu culture opposition bi taxawoon ni dafa bëgg a daganal góor jigéen franchement loolu moo waraloon ma indi projet de loi pour wane li ngeen di wax c'est des mensonges te ci opposition bi am na ñoo xam ne bi ma ñëwee fii di wax ni yan député ñoo d'accord ci ñu voter la loi ñi ci d'accord il y a des yu fi nekk yoo xam ni dans l'opposition ñi ngi fi ba ma leen ne signé leen dañoo lànk donc ñoom ay góor jigéen lañu te dinaa leen dénoncer dama leen di signaler leen pour wey ni yéen d'accord ngeen ci mais dañoo bañ te léegi ñoom ñooy nekk rajo yi. Euh, ko wax le moment ko wax le man gis naa ay góor jigéen lañu ndax koo xam ne projet de bi yaa ngi nekk ci rajo yi ak télé yi di wax rek te bañ leen a signal da ngaa laaj ba pare continuer di wax je vais publier la liste très bientôt ñoom nag ñoom ñooy góor jigéen mag yi Macky Sall wax lu leer tant mi ngi am xel di jiite mi mu ànd ak sagoom loolu bu mas dagan ci réew mi loolu koy doy na moo di interdiction lépp a xaaral non loolu amul loolu loolu ñoom attendez lan lañ mën a xaaral dem ba bi ñu demee commission technique ñoom ña nga ko mais sudi wuñ ko woon dañ toog ba avant rek nañ dem ci benn de la place ñu waxtaan foofu génn jax si xel mais nit ñi léegi sont dañu waxoon nit ñi fii jàmm ak salaam fii y'a personne dañu waxoon ni tey mais ailleurs y a des gens qui manifestent mën nañu wax ne ah, parcelle mën nañu wax ne UCAD euh, si boppam UCAD euh, tey suba Parcelles Assainies. non nañu arrêté mani ñooñu bëgg a taal réew mi daañu ko diggaale ñoom. mën na bëgg foofu daañu ko diggaale ak ñoom su fekkente ne xeex démocratie mooy lan dañ koy am ci kàddu yu rafet dem ci askan bi askan bi dox na seen baax. waaye nag di xeex ko xulóo di taal réew mi.